di leen ñaanal weekend bu sedd ndax xam naa ne Sénégal moom am weekend bu apaisé sax mayu yàlla la fa donc gars yi maa ngi leen di ñaanal ngeen am weekend bu apaisé seen xol yi wàcc seen tension yi bañ a yéeg comme toujours may ñaan aussi ngeen partager live bi massivement c'est important parce que li may wax gars yi la toujours soo seqee ak ay bandi ak ay samba boy tu te mets toujours dans une position de combat maanaam il faut toujours être prêt pour un combat surtout encore quand on est face à un gouvernement de cartel comme celui de Macky Sall préparons-nous toujours à un combat tey boo leen xoolee thème live bi daf leen ne ne touche pas à ma constitution ne touche pas à ma constitution boobu ngeen dégg dafa am lu ko waral ndax Macky Sall la ñu gis ci président mu taxaw ci kanamu institution sénégalaise yëpp taxaw ci kanamu doomu aadama sénégalais yëpp mu ne on passera par l'Assemblée nationale pour faire passer les lois pour éligibilité pour éligibilité Karim Wade ak ki nga xam ne moom mooy xalifa Sall maanaam nee na assemblée nationale lay jaar ak ay tappaleem ak ay njuuj njaajam pour Khalifa Khalifa Sall ak Karim Wade allergie bi et c'est normal pour man ñaar ñooñu allergie bi mais ñu jaarale ko ci yoon parce que bu ma nee xaaral ma jalgati yoon pour jox kële li mu bëggee jalgati même yoon boobu pour mën a xañ kële li mu bëgg te Sénégal foofu la toll Sénégal dafa toll foo xam ne dafa am loo xam ne tey dama koy bamtuwaat xamoon nañ ko ñu bari ci ñun xamoon nañ ko waaye dañ koy bamtuwaat rek kii nga xam ne moom mooy président wu assemblée nationale sénégalais yëpp xam ko le président de l'Assemblée nationale du Sénégal ñun ñëpp ñu xam ko Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop moo nekk ni kii mooy Amadou Mame Diop dinaa leen ko indil indil leen frère am Amadou Mame Diop xaritu Ibba Faye la Ibba Faye moom la Marème fay Sall topp ci moom Marème Mansour la après Ibba après Marème donc Marème fay Sall moom moo topp ci Ibba Faye donc Marème Faye Sall kii mooy Mamadou Maam Diop boo leen xoolee keroog bi Macky Sall di wax kii moo toog ci wetam kii xaritu ba fay la kii mooy président assemblée nationale actuelle moom la ñu jël ba ñu bëggee sàcc assemblée nationale bi fàtte ngeen keroog ba ñu indi ay police ak gendarmerie ci biir assemblée nationale pour une première dans notre histoire pour imposer ñu waa ji comme président assemblée nationale. parce que Mimi Touré la bëggoon indi à la dernière minute waa ji la indi parce que ça. c'est pas un ami de la famille c'est quelqu'un qui fait parti de la famille lenn rek la amul mooy santu famille bi santul fay santul sàll donc c'était il était bien placé pour ñu nelawal xelu sénégalais yi tey nag dama leen di wax kii kan la pour ngeen bëgg a xam kii ngeen di gis nii c'est un pharmacien c'est un pharmacien déglu leen ma bu baax c'est un pharmacien kii ngeen di gis c'est un pharmacien c'est un pharmacien de profession mi ngi tudd Amadou Mam Diop Amadou Mam Diop pharmacien la déglu leen ma bu baax en deux mille cinq deux cinq juróom-ñaari at balaa Macky Sall di doon président de la république du Sénégal 2005 la Amadou maam Diop mi ak Iba fay ak seen beneen xarit créé woon société bu tudd Profam Profam dafa doon indi ay maanaam euh, dafay am ay contrat pharmaceutique maanaam tey bu ñu waree commander ay garab wala ay mbir ci Sénégal société yu mel noonu ñoo koy commander donc Mamadou maam Diop bi xaritu Iba Faye bi nga xam ne moom ak Marème Faye Sall ñoo bokk ndey ak baay ñoom ñaar ñoo jàngandoo ñuy ay xarit d'enfance moom Mamadou Maam Diop mii frère am Lat am na frère ma indil leen photom frère am c'est lui qui était chargé de la de l'agence qui était de de l'affaire des forages avec Mansour Faye ma indil leen ko nii xaar kii mooy frère Mamadou Mame Diop kii nii xaritu Mansour Faye benn bakkan la Mansour Faye mi bokk ak Ibba Faye ndey ak baay kii mooy xaritu Ibba Faye muy Mamadou Mame Diop kii di Laat Diop di frère Mamadou Mame Diop kii xaritu Ibba fay xaritu Mansour Faye la benn bakkan donc déglu leen ma encore président assemblée nationale bi ñu dem tàbbi génne ko ci benn ruq indi ko imposé ñu ko c'est pas par hasard c'est parce que Macky Sall saa buy teg dil il amène soit un membre de sa famille ou mu jël ñi ko gën a jege seeni ay parents wala ay affaire ñu defal leen ñaawteef bi nga xam ne moom la ñu bëgg kii Mamadou Mame Diop amoon nañu chantier ñoom boo xam ne chantier tabax la maanaam seen kër chantier boobu moom moo nekkoon euh, Iba Faye moo nekkoon en charge pour tabaxal leen chantier boobu comme Iba Faye moo moo yoroon chantier bi tabax bi bi ñu bëggee ñu tabaxal leen chantier bi Iba fay moo yoroon mbirum tabax bi voilà donc pour ngeen xam voilà moom kii yoroon li nga xam ne moom mooy seen chantier mariste ñaari frère yooyu bi ñuy tabax frère Marème fay Sall bi moo leen doon tabaxal Ibba fay moo yoroon sa Ibba fay pour yéen ñi dekk Saint-Louis diggante fleuve bi maanaam fleuve diggante géej ak euh, dex ak géej diggante dex bi ak géej Ibba Faye tabax na fa loo xam ne gars yi ñu ngi layam-layame ñu ne dafa mel ni këru Donald Trump bi nga xam ne moo nekk Floride te ñu tudde ko mar a mooy maanaam chantier bi gën a cher ci tabax ci Amérique des milliards lañ ci def la ci Donald Trump def chantier bi nekk mar a donc mar a boobu ñu ne Iba Faye tabax na lu mel noonu ca Saint-Louis ma ngi cay toxu sax fi mu toll nii diggante fleuve bi ak géej gi moom tabax na fa lu mel ni mar a ñoom ñu bari sax ñu ngi daw dem Saint-Louis donc pour rek wax leen tuuti ci Mamadou maam Diop mi nga xam ne moom mooy président wu assemblée nationale du hasard c'est pas par hasard Macky Sall jël ko tabb ko def ko président assemblée national parce que lum ko sant suba ba ngoon jot loolu dafay am assemblée nationale par force pour ngeen xam soit sénégalais yi bañ wala xanaa sénégalais yi nangu sénégalais yi ñooy décide parce que nous on a déjà vu le bon chemin gis nañu yoon bu baax bi ba pare xam nañu ne lu ñu bëgg mooy am Sénégal lu ñu bëggul du am donc Mamadou Mame Diop il n'est pas par hasard quelqu'un qui a été pris par Macky Sall ba fay ak Marème Faye Sall ñoo ko tabb pour mu nekk président assemblée nationale parce que lu mu bëgg mu jàll assemblée nationale dafay jàll par force ñoom noonu lañ ko jàppe gars yi nag il faut ñu xam ne dañu nekk ci benn combat loolu laay fàttali sénégalais toujours le système et le contre-système maanaam système bi mooy ñan ñi nga xam ne ñu ngi fii ñun ñoo leen di fayal salaire ñun ñoo leen di jox kër yu ñu dëkk ñun ñoo leen di jox oto ñun ñooy fay ñu faju ñun ñooy fay seeni ay doom jàngi bitim réew ñun ñooy fay seen famille faju ñun ñooy fay ñu tabax ay château ñoom daal benn métier lañu am métier boobu politique la tudd l'exemple l'incarnation parfaite c'est Moustapha Niass depuis temps Senghor mi ngi fii mi ngi dund dund bu yanj dund bu jaggi dayoo dund bu mucc ay même ay xaram même ay dunguróom ak ay surgaam il les fait des milliardaires ñoom ñëpp dañuy doon ay milliardaires parce que lan la ñuy dundee alalu Sénégal koom-koomu Sénégal man-manu Sénégal comme li di li ko euh, Guy Marius Sagna di waxee toujours golo béy baabun dundee ñoom loolu rek la ñuy dundee seen dund yëpp mooy ci ndoddu sénégalais yi lu sénégalais yi liggéey ñu jox leen ci kër gu rafet ñu fayal leen ci ay impôt ñu fay leen ci ñu faju ñu jox leen ci ay passeport diplomatique ñu jox leen ci ay contrat jox leen ci lépp lu ñu bëgg donc ñooñu la ñuy xeexal par contre tey nga am beneen génération sénégalaise bu bees bu mel ni le président Ousmane Sonko mu ne hee soxlawuma sax salaire président de la république te dama fi dindi li nga xam ne moom mooy caisse noire parce que caisse noire mooy huit presque dix milliards yoo xam ne dañ koy jël ci alalu Sénégal ne président de la république lii alal la boo xam ne da koy yaata yombe déglu leen ma de amul Amérique amul France amul fen ci adduna bi amul fenn Sénégal la am da ngay ñëw ñu ne président de la république fukki milliards mi ngi nii léegi def ci lu la neex loolu bakul ak li muy sàcc lii dañ ko koy jox légalement légalement dañuy ñëw ubbi keesu réew mi jël fukki milliards ci réew moo xam ne amuñu lu ñu lekk fukki milliards maanaka presque un milliard weer bu ne milliard ñu jël ko teg ko ci loxoom xam nga salaire président Amérique annuel ñaata la genn wàllu milliard la cinq cent millions francs CFA président Amérique président Joe Biden li muy fayeeku ci année bi yëpp at bi yëpp Amérique ci salaire li ñu mën a génnee ci keesu Amérique jox ko cinq cent millions de francs CFA la xam ngeen salaire u Macky Sall ñaata la caisse noire dix milliards kickback maanaam alal yi muy sàcc ak yooyu muy luubal ak contrat yeeg tappale yi te du laaj kenn lu ko neex mu jël ci alalu Sénégal mu signé lu mu bon bon bon bon bon bon bon bon cent milliards donc déglu leen ma de lu mu bon bon cent milliards donc sant dix milliards Macky Sall dugal na ko ci poche am te fekk kenn laajagu kenn laajagu ko naka nga def donc dis-toi réew mi ëpp alal ci adduna bi réew première puissance mondiale seen président cinq cent millions lay fayeeku ci at Macky Sall mi ngi fayeeku ñaari téeméeri yoon li kooku di fayeeku est-ce que yéen may dégg bu baax maanaam Macky Sall mi ngi fayeeku ñaari téeméeri yoon mi ngi yor ci ay koppar ci loxoom ñaari téeméeri yoon li président Amérique di yor mais loolu moo tax suñu dëkk bi ba guerre am fa guerre mooy Macky Sall tey da koy neex tey nit mu xool la ci kanamam nga neex ko rek mu may la cinq cent millions Macky Sall daf lay xool nga neex ko rek ah sawaay da koy neex rek xool leen rek même xale yu jigéen yi nga xam ne lañ leen di jiiñ ñu ne dañuy jëflanteeg Macky Sall mais ñooñu salaire taxul ñuy liggéey ñooñu dañuy liggéey tout simplement rek parce que dañoo bëgg a liggéey dañoo bëgg a xëy dem di ñëw c'est tout mais boo leen xoolee ñoom ak jigéenu ordinaire u Sénégal yi sax niroowuñu ñi nga xam ne dañ leen di accuser ñu ne ñoom mag i Sall dañu séq sax wax xool leen leen sawaay nous on a un problème